xutbul xaatim. nee xutbul xaatim. man lay war a doon. man lay war a doon. ba mu génnee woote ko. ba mu génnee woote ko. benn haatif. benn haatif. ni ko du yow de. ni ko du yow de. mu taxaw. mu taxaw. ni ko kat. gisul kenn gisul kenn. ni ko du ni ko du mu ni ko du de. kan la. mu ne ko kan la. mu ne ko kooku nga ca maghribul arab. mu ne ko kooku nga ca maghribul arab. fa lay juddoo ji la. fa lay juddoo ji. mu ne kon yàlla na ma ko yàlla won. li ko wut nag. di ko wut nag. ci baatin ci baatin. di ko ñaan boromam. di ko ñaan boromam. ba Cheikh d'accord ak maamam. ba Cheikh d'accord ak maamam. pour moom mu gis ko. pour moom mu gis ko. ñu won ko ko nag nee na waaxu naa ba ñëw nuyu ko nee na waaxu naa ba ñëw nuyu ko dénk ko sama bopp dénk ko sama bopp mu nangul ma mu nangul ma mu ne waaye day xam naa ni mu ne waaye day xam naa ni bés bu feeñee ba ñëw bés bu feeñee ba ñëw ku bari nattu lay doon ba mu ñëwee la mu waxoon moo am. ba mu ñëwee la mu waxoon moo am. fu mu toll rek. fu mu toll rek. nit ñi di ko bëgg a gis. nit ñi ko du ko bëgg nit ñi du a gis. waaw loolu nag bu yàlla boole ci. ne loolu bu la ci yàlla boole na. ne. da fexe ba doo ci génn nag. na façon boo xam ne boo ko defee boo xam ne boo ko defee rek génn ci. takku bu baax. nu dolliwaat takku bu baax. ci suñu diineeg suñu tariqa. ci tariqa. te ñeñ ca jaayanteeli te ñeñ ca yi ñu bàyyi leen xel ndax ñoomi kat bàyyi nañ ñu xel bàyyi nañ ñu xel te sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu daf ni woon ku fexe ba ñu bàyyi la xel ku fexe ba ñu bàyyi la xel yow itam da ngay bàyyee xel. yow itam da bàyyee xel. ne su ko defee du koy fàttali suñu mbokki taalibe yépp xam ni lii ñu amee lu pur la. looy wut àdduna ak àllaaxira ci biir. looy wut àdduna ak rek mu ngi ci biir. bu ko defee rek ñu delloo buum ca booy booy ba yàlla nanu ci yàlla dimbali nee ñu dugg ci bismillaahi mubaarakul ibtidaai yàlla nañu am maymunal intihaadi ne ñu ngi ko commencé ci yiw yàlla nañu ko àggale ci yiw ne yéen waa Tiwaawan nag ngeen dollee takku nag xam ni gan ñi seeni gan lañu bis bi yàlla yéen la may chance mu xewee ci seen dëkk. bés bi yàlla yéen la may chance mu xewee ci seen dëkk. donte sax àdduna yëpp a ko bokk. donte sax àdduna yëpp a ko bokk. seen borom di sos tuuti woon na lool. ba ko seeni borom na lool. fekk wu ma dund Seydil Hadji Malick. fekk wu ma dund Seydil Hadji waaye fekke naa fii ci Tiwaawan nag. waaye fekke naa génn jëm jumaa ja. Serigne Babacar si génn dem jumaa ja. mbooloo topp ko. mbooloo topp ko. guddi gam. guddi gam. su demee. su demee. ñu tegal ko chaise mu toog. ñu tegal ko chaise mu toog. indil ko benn gën. indil ko benn gën. mu teg ci miimiye bi. mu teg ci miimiye bi. góor gi ndaraw ñëng taal sondeel di ko niital muy firi ay kaang ay kaang nekk ca buntu nekk ca buntu jumaa ja di tari di tari di dem ak a si. di dem dellu si. ñun xale yi ñu di leen seetaan. ñun xale yi ñu di leen seetaan. benn lampe gaz. ne benn lampe gaz. moo amoon ca gaar ba. moo amoon ca gaar jógee àbb ko chef de gare. bu ñu jógee àbb ko chef de gare. taal ko ci bunt bi. taal ko ci bunt bi. mu leeral mbedd mi yépp nag. mu leeral mbedd mi yépp nag. waaye léegi nag sonde loolu lampe. tampet waaye léegi nag sondeel wala lampe tampet koñ bu nekk nag ñu def fa lampe potafort koñ bu nekk nag ñu def fa lampe potafort ko màggal yàlla di ko màggal ba mu yëg si fii tey kon nag ñu bokk ci ba faw nag kon nag ñu bokk ci ba faw nag tabaarakallah te ànd ak tey nag. te ànd ak tey nag. bu leen ni sëriñ bi nekkatu fi rek. bu leen ni sëriñ bi nekkatu fi rek. nu nu neex la ñuy doxale. nu nu neex la ñuy doxale. ñu def léegi bi ñuy dugg fii. nii ñu def léegi bi ñuy dugg fii. du yar. du yar. du yiw. du yiw. xëccoo jëkk dugg. xëccoo jëkk ko defee xaw na ni ñu ko defee daal xaw na ñàng te loolu yëpp nag bakkan dong la nag bakkan gis sa bopp la ndax gis sa bopp la te bokk na ci liy yàqal doomu aadama te na ngeen di teey kon nag ngeen di teey bàyyi service d'ordre bi ñu doxal seen service. bàyyi service d'ordre bi ñu doxal seen service. ñoom itam ñu teey. ñoom itam ñu teey. waaye ngeen ëffal leen. waaye ngeen ëffal leen. waaye bu ku nekk bëggee xëccoo. waaye bu ku nekk bëggee xëccoo. bëgg ji jiitu waaw. bëgg a jiitu waaw. yow nag koo xam ne nee nga mooy sa yaakaar. yow nag koo xam ne nee nga mooy sa yaakaar. te bu siis rafetee yaa ci bëgg jëkk a toog. te bu siis rafetee yaa ci bëgg jëkk a toog. bu buntu ubbi ko yaa bëgg jëkk a dugg. bu buntu ubbi ko yaa bëgg jëkk a dugg. loolu it nag du sotti. loolu it nag du sotti. sedd tuuti ki nga am nag. ñu sedd tuuti nga sedd tuuti ki nga am nag. noonu ñu ko defee du noonu. noonu ñu ko defee du noonu. moo tax man ma bàyyi bunt ba. jaar si ci bunt bu mag. gis nga ni mu gaawee. gis nga na mu gaawee. parce que man mi ngeen koy man mi fiy jaar. mais man mi fiy jaar. du ma sëñ Mansour du ma sëriñ Cheikh sëñ Mansour du seen surga la. seen surga la. bu ma gisul lu ma xam rek. bu ma gisul lu fent sama fent sama yoon. moo tax ma daal di leen wëcce buntu. moo tax ma daal di leen wëcce bare. ba mu ci buntu jumaa ji. ñu doon jëkkante ñu tocc tocc. ñu doon jëkkante foofu ni tocc toccoon foofu. ne loolu yëpp nag. ku gën. def ndànk moo ko gën. te yonent bi alayhi salaatu wa salaam. tey. tey. lu mu lu mu dugg. rafetal ko ko. waaye lu mu waaye lu mu génn. ñaawal ko. téye rek. nekkoon nag ñuy ànd ak teey rek. waaye bu ñu ko bëggee commencé kërti kërti nii. waaye bu ñu ko bëggee commencé kërti kërti nii. mën nañu ànd rek simplement. ñun mën nañu ànd rek simplement. soxlawul sax cortège ak gendarmerie. soxlawul sax cortège ak gendarmerie. loolu Serigne see ko soxla. loolu Serigne see ko soxla. waaye taalibe yi kay mën nañoo jaxasoo. waaye taalibe kay mën nañoo jaxasoo. te ñun ay taalibe lañu comme yéen. te ñun ay taalibe lañu comme yéen. woote wu ñu lu lu dul lool. bi nag ñoo fi nekk. service bi nag ñoo fi nekk. ñu leen fi bàyyi. ñun lañ fi bàyyi. ñu di ko assuré. ñu di ko waaye taxul ñuy sëriñ nag. waaye taxul ñuy sëriñ nag. taalibe lañu comme yéen. taalibe lañu comme yéen. jiw nag. nee jiw jiw ci seen barke yàlla na ko yàlla jox. ci seen barke kon yàlla na ko yàlla jox. waaye ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax. waaye ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax. ñu àndandoo rek dox dox bu jekk. ñu àndandoo rek dox dox bu jekk. benn façon dafay ñaawal kër gi. ba ñu xëccoo benn façon bi dafay ñaawal kër gi. taalibe bu nekk tey war ngaa mën a ëffal sa mbokk te taalibe bu nekk tey war ngaa mën a ëffal sa mbokk jox ko sa place jox ko sa place dellu ci gannaaw dellu ca gannaaw kenn ku nekk ci ñun kenn ku nekk ci ñun war na koo mën a def war na koo mën a def man de mën naa ko jóg sama chaise jox sama mbokku taalib. jóg sama chaise jox sama mbokku taalib. wala ñu ngi buntu ma dellu gannaaw ëffal ko mu jëkk ma. wala ñu ubbi bunt ma dellu gannaaw bàyyi ko mu dugg. ma ëffal ko ma ëffal ko. man dey man naa. nag yaay yar sa bopp ba àgg ci. loolu nag ku nekk yaay yar sa bopp ba àgg ci. kon nag ñu bàyyi ko xel beneen yoon. ne kon nag ñu bàyyi ko xel beneen yoon. di yaatalante rek loolu la xadra bii laaj tabaarakallah ah mu ngoog bopp jox nañ leen gàmm gi jox nañ leen gàmm gi li ci seeni borom bëgg li ci seeni borom bëgg ñu defal leen ko ci rek ñu defal leen ko ci rek te mooy taxaw tem te mooy taxaw tem mujjat mujjat taxaw tem taxaw tem nekk ay soldat nekk ay soldat lu bëgg a yàqu ñu defar ko lu bëgg a yàqu ñu defar ko te xam ni suñu alal la ñu ñëpp ko bokk te xam ni suñu alal la ñu ñëpp ko bokk tabaarakallah ne kon mu ngi dellu di nuyuwaat gouverneur di ko sant ak préfet be monsieur le commissaire suñu commandant gendarmerie ne ñoom ñëpp ñu ngi yeesal cant di ñaan bu ñuy dem ñu ëffal leen rek bañ a raj raj bañ daal lañ leen doon fàttali ne bésu gàmm gi nag le 13 janvier weer wi feeñ na bii muy feeñ nag dafa ñettam lool. moo tax ma téléphoné Serigne Babacar Sy Mansour. moo tax ma téléphoné ni ko feeñ na waaye xat na. ni ko feeñ na waaye xat na. ci ñu dem burti. ci ñu dem burti. ba ñu def ko ñaari bunt. ñu def ko ñaari bunt. ma téléphone it Cheikh Ahmad Tidiane bu Serigne Mansour wax ko loolu nu bokk ci d'accord ba indi ko tey ji waaye weer yi moom feeñ na biig barakatu